ci ay simili néew ñu jox leen xibaar yu wér te woon Ousin ngeen di àndal ci li tax ma wax ko ndax sax nag contrat moo jeex waaye nag euh, fédération bi ba léegi yeyul yàbbi ci euh, contrat da koy renouveler ou pas contrat bi leen depuis 2015 mi ngi fi woon euh, bu mu jigee 2015 2019 ñu daal di koy yokkaat contrat am 31 a jeex jeex na sax nag jamono ji ñuy wax ak yéen alors di xibaar bi nga xamante moom la toppandi mais li ci mënti am mooy ndax contrat am dañu koy yokk lan moo tax boobu ba léegi négocier wuñ ak moom loolu di xibaar bi nga xamante ni dinañ leen ko toppandi waaye jàpp leen rek ni Aliou Cissé jamono ji ñuy wax a gën mi ngi yóotu ni nga xamante ni moom mooy troisième mandat